di yëkkati kàddu yi ziyaare di ko jëme ci sëñ Muntaxa Bachir alxalifatul am di ko yëkkati ci turu Touba kanam gépp rek waaye ci turu seen njiit sëñ Habibullahi Mbàkke ak jëwrinam sëñ Abdoulaat Habibu ak seen jëwrin Abdul Fatah Guèye ak mboolem Touba kanam gépp di ko yëkkati tamit ci turu sëriñ Saalihu Mbàkke moom Cheikh Murtada mi nga xam ne kuréel gii di kër asaka yi waral jataay bi tey Euh, mbooloo mi ci gën a ëpp solo nga xam ne moo ko seet di hay'a shar'iyya moom moo ko jiite kon ñu ngi nuyu ñëpp ci seen tur ñooñu ñëpp di wax rek ne Touba ca kanam day kuréel goo xam ne objectif am mooy mooy tur wi mooy Touba jëm ca kanam te mbokk yi ñu xam ne Touba jëm ca kanam mënta am ci lu dut ni ko ni ko borom dëkk bi bëggee woon te moom dafa waxoon ne walastu raadiya xayral ilmi wa diini moo tax Touba ca kanam bay waar wu rëy ci wàllu xam wala wu lool sax waaye tey jii nag ñu ñëw ngir eh, maanaam fésal tàmbuli officiellement liggéey boo xam ne sëñ Muntaxa moo leen ko dénkoon di leen ko saytuloo di leen ko taxawalloo te muy kër asaka yi ngir jàppandal ponk boobu nga xam ne mooy ponk ñett ñetteel ci charia di ponk bu am solo te ku nekk gis ne am nag sooxe ci wàllu ñu koy génnee li ko waral nag lu bëree bëri la waaye ci ëpp solo mooy xëy na ñàkk xam ak ñàkk am kuréel gu koy taxawu kon ñu xam ne kër asaka yi taxaw na li nga xam ne nag euh, xëy na mooy euh, objectif am mooy nit ñi mën a génne asaka ni mu dëppoo ak sharia mooy ñu xamal leen naka lañ koy génnee ak kañ lañ ko war a kan lañ ko war a jox ñu wax rek ne daanaka euh, daaw bare ñu ngi ciy dox ci ndigalu Sëriñ Muntaxa Bachir waxtaan ci borom xam-xam yépp ba tënk ko ba def ko ci benn document ba fal biro yi ko war a saytu muy ñetti biro xam naa incha allah ñi ñëwaat danañ ko leeral ba ñëpp xam ko muy al majlisul aala haya al shari'iyya ak al haya al idariya xam naa ñu def fi ñu taxaw rek mooy al haya al idariya boobu mooy bi nga xam Touba ci kanam boobu la saytu moom la féetewoo ndigal li nag mooy ci moom mooy mu jàppandal lépp loo xam ne mooy tax kër asaka yi mën a jàpp li ba mën a taxaw mooy dox ko dem seen borom xam-xam yi dajal leen lépp lu laaj ci ay takaalif mu toggoo ko ba samp ko ba mu taxaw mu jébbal ko jullit yépp ñu bokk ko ndax ñépp mën a wàccoo ak ponk boobu di asaka di wax rek ne si si bu fataa leeral na ko léegi ba mu leer naññ mooy Touba ca kanam dafa am wuute ak kër asaka yi loolu moo tax mu indépendant ci ay doxaliin dañ ko beral ñu koy saytu beral ko ay compte beral ko ay bureau beral ko mbooleem jumtukaay yépp loolu sax moo waral ñu taxawal xëy yi bi nga xam ne sëriñ saalihu moo ko jiite te xëy ashariya boobu li tax ñuy xam ne rek ne dafa am istiqlaaliya ñi ci nekk ñëpp ñëpp xaaj bi bokkuñu Touba ca kanam kon loolu day wone rek ne bëgg mbir mi rek gën a dëppoog charia ni mu ko santaane moo tax ñu tànn ñi nga xam ne képp ku ci nekk wóor nañu ne am nga capacité mën a koo taxaw yow dong kon xam naa incha allah ñoom bu ñëwee danañ ko leeral ba mu leer ci mbokk yépp di bàyyiwaat xel ne kër asaka yi jullit yëpp a ko bokk Touba ca kanam nag moom la ko sëñ Mountakha tàmbali loo di ko saytuloo borom xam-xam yi waaye nag jullit yi yëpp ñoo ko bokk kon ñoom ci tàllal loxo mbooleem jullit yi yëpp di xam le ni it incha allahu rabbi bi yàlla dogalee ñu noppi ci lancement bi danañ jogaat def ay délégation dem seeti mbooleem kilifa diine yi ci Sénégal yëpp ku ci nekk ñu jox la ko si cër jox la document bi nga xam ne kat yaa ko moom yaa ñëpp ko bokk ñun liñ ci war rek mooy taxawal ngir jàppandal ponk boobu nga xam ne gis nañ ne am na bu baax a baax ak sooxe ci réew mi te yooyu yëpp ñu tudd waral ko di waxit ne kër gi dafa làmbaal li ñuy wax al waqf ndax gis nañ ne waqf xëy na taxul ñu mën ko fii lool ci Sénégal waaye lu am solo la lu mën a jàppale jullit ñi la ndax képp ko bëgg ngaa def lu baax loo xam ne bu ëllëgee sa njaboot duñ ko dond nga am loxo yoo ko teg ñu mën koo saytu ba sàmm ko ba nga am ci liñ ci bëgg insha allahu di wax ne daal danañ ci sàmmoon sàmmonteeg lépp loo xam ne sharia digle na ko yooyu nag bokk na ci ashafafia maanaam lu mel ne transparence dana ci am dana am it anonymat nga xam ne ki nga xam ne moo joxe asaka danañ ko sàmm sàmmal euh, la mu ko joxe ba xam ne kenn du xam ne kat kii ki ko joxe nangam la wala bu joxee nangam kat war naa am nangam yooyu yëpp danañ ko ci bàyyi waale xel ak it fexe ba lépp dëppoo ak sharia ba nga xam ne tax ñu taxawal ko nga xam ne gis nañu ne kat génn bi ñu koy génne léeg-léeg du kon ñu indi kuréel goo xam ne da koy jàngat ba nga xam ne dëppoo charia kon su boobaa bu sàmmanti wut ak àq charia wala ay cantaanam ci wàllu googee kon day mel ne kon jëru ko woon kon loolu lépp danañ ko bàyyi xel insha allahu yi xam naa ko kon ñoo ngi yemale fi kàddu yi rek di bàyyi mbokk yi nga xam ne ñooy ñëw ñu gën koo leeral insha allahu rabbi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.